werde ci fajar bi foofu euh, gis nañu euh, toj toj ci nekk fi wa kër gi di ci joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, takk der yi moom Cheikh Bara Ndiaye ñu fàttali ne dafay def ay chronique ci groupe Walfadjri moom it di yëngu ci wàllum ñaan yu nu mel ñu gis ay sorties yoo xam ne dina koy faral di def euh, ci euh, télé wala ci rajo yi nekk fii ci Sénégal fii nag ngeen gis ñu ne moom Serigne Bara Ndiaye bu fajar jotee fii lay toog di julli wala sax di werd kurus kaamil ak sax mel gàddu gi nga xam ne daal nañu ko fi teg moom Cheikh Bara Ndiaye daan toog ngir amal li nga xam ne moom mooy ay ñaan lu ñu koy toppee lan la def ak lu mun ci am nañu jox suñu micro ñi nga xam ne ñoom ñooy waa kër gi bu ko defee ñu daal ci dellu si waat ñu waa noonu la demee waa jot xew mooy euh, police ñëw na fi diggante sept heures ak huit heures ñëwee ak mu ànd moom leen sëriñ bi soxna si daal di woo ci suuf benn taalibeem bu ñuy wax Adama Ndiaye ñëwee xam nga li njëkk def mooy ñoom arme lañ génne dèjà waaw lu jiit loolu tamit menacé nañ soxnaam xëqanteeg ñoom takk der yi bi Adama Ndiaye ñëwee ñu génnee arme jàpp sab sëriñ dafa metti mais mu ànd ak dal ànd ak sago bin génnee arme Adama Ndiaye xaw a jàppante ak ñoom foofu ñu daal di ñëw ci porte sëriñ bi mi bi porte jabaram daal di dajji porte bi dajji porte bi dañ def spécial parce que boobu nun ko da am na loon ko pincé parce que taatu pistale bi la ko doon dóor taatu pistale bi la ko chef bi ne ko ndax pistale bi dafa am charge mu ne ko non non amul charge daal di débranché daal di dóoree pistale bi lañ doon tojee affaire bi ba yàgg ñu pincé porte bi ñoom dugg ci biir soxnaam ne leen na leen wóor na ay bébé ñoo nekk ci biir ñu yor pistolet bi di fëyee ci biir néeg bi soxna si ne leen mais rus leen xale yi nga xamante ni ñoom wóoru ñoo gis arme mais mel ni dañ leen yabal na leen dem leen toroxali suñ baara wala yéen daal dem leen suñ baara menn mbaam la moo xam ne dañ ko war a jàpp wala suñ baara jaam la wala suñ baara du nit soxna si ne leen man ko xam samay droit la su ngeen ma wanee mandat dare bi nga xamante ne da ngeen koo am bay dinaa leen bàyyi ngeen fuyee fu leen neex man amunu mandat d'arrêt léegi comme jigéen la donc ñoo ko ëpp doole ñu forcé ba dugg ci biir soxna si na leen gis ngeen sëriñ bi nekkul fii fekk sëriñ bi mu ngi ci jàkkaam di jaamu yàlla ci leen ñëw porte bii ma taxaw jël ko fii leen fekk sëriñ bi toj porte bi dugg ci biir li gën a garaaw mooy fekk sëriñ bi sol yére ñu bëgg ko filmer soxnaam mi yor fiitu gaynde ne leen du ngeen ko filmer c'est parce que kilifa la yaa may dégg loolu moo naqari ay taalu benn mais li beese affaire bi du police du kenn nan sant seex Bara Ndiaye di leen koy sant mooy burutoon moom tey Bakar mën naa rëbb ci kër gi. parce que li tax oto police di dem noonu ngeen gis a fële waa koñ bépp dagg topp ko ci biir kër gi la naroon jóge mais malheureusement waa këram ñemewuñ ko mun leen eh yéen ñëpp na ngeen ànd ak dal léegi bu noonu na ngeen ànd ak dal comme ay taalibe bi nan mais imagine toi tey bu fekkoon violence bi koy jiiñ dafa nekk ci moom mu bàyyi waa këram ñu jëfee ni leen neex àddina mooy tukki fii soit que ñu rey fi nit wala ñu rey fi keneen. kon donc nañuy xam li ñuy def bu baax a baax a baax a baax a baax sëriñ bi nag li ma leen di wax mooy bi muy génn sëriñ bi wopput dara dalu ko lan mooy motifu arrestation bi nee nañ appel appel loolu ñuy wax man jànguma tubaab sax loolu lañ ko jàppee liñ jàppee ñëpp rek. waaw ay awokaam génn nan bin ko laajee def na leen du question ko bañ a def na leen injustice bi ngeen ma jàppee yéen nawloowu ma leen ba leen di tontu du ma lekk du ma naan loolu moo leen ko wax loolu mooy kàddu bu njëkk sëriñ bi waaw noonu la demee fee ko jàppee jàkkam jaa ngi ne fee la toog fee lañ fekk mooy du wér duñ jàpp ko yóbbu yan condition la génne ci kër gi nag ak dal non ma manote wuñ ko ci dal la génnee ci kër gi donc kër gi yëngu-yëngu yi fi doon am mooy taalibe boppam ñoo doon bëgg a seen bopp parce que xam nañ ne nin ko jël seed yoon amul taalibeem bu nekk fanaan ci kër gi ku jàngut ba yee ay kayitam jabaram jee noonu droit kay mi ngi yam ci won leen nu mandat dare ñu bàyyi leen ngeen fuye fu leen neex yow jéem siwil bi moo lay wax li nga war a def fu senegal jëm non yëgu ko parce que bu ko yëg yëgu ko mi ngi toog ci jàkkaam di werd noonu la deme taxawaay bi nar a am mooy dal parce que lu du dëgg du yàgg bu fekkan dañoo bu fekkan fi nu war a jaar buñ fa jaaree am liñ bëgg donc dinañ jaar fi nu war a jaar ngir am liñ bëgg mais nag le fait que ñu jël si côté indiwoon mandat d'arrêt kon lan lan nga man bi xibaar bi financement yu doon ndaw ngir a. Cheikh bu amee financement yu muy joxe ndaw internat bi la koy jox bu amee financement yu muy joxe ndaw ngir ñu di ko taal mu dem ci internam bee jënd koy ceeb ak diwlin jox ko dongaam yee mais ay financement buy jënd essence di taali nit loolu moom bu am ay financement buy jox kenn dongoom yee la koy jox mais talul ay financement yu taal taal pour lan noonu la demee merci beaucoup euh, bon anam biñ ko tegee loxo li ñuy wax mooy Sénégal moom ku yebu tiit sa bopp te xam ni on plus dans un pays de droit parce que nit kilifa booy ñëw këram di ko seet dafa am anam yoo fa war ñëwee ba pare Cheikh Bara c'est du n'importe qui dans ce pays am na interprétation yoo xamante ni boo koy def kilifa dafa am faaw nga waajal sa bopp indil ko kayit yuy ferne ni kii yu koy firndeel ni kii taykat yoon la laa soxla wala nangam ak nangam mais yooyu yëpp amu si parce que man maa ngi si kër si kër gi laa nekk donc euh, li ma siy wax daal mooy di ñaawlu niñ ko niñ ko arrêté niñ ko arrêté maa ngi koy ñaawlu di wax réew mi ku tiitul ku tiitul da wax lu la parce que réew mi fa jëm fa jëm a ah, man de man de ñaaw ñaaw naa si njort trop ndax sur raison bi réew yi ko jege yëpp lu mel ni la tàmbalee jaay doole injustice baaxul injustice ku ko dundul mënu koo xam kuñ ko tegul mënoo koo xam te ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñooy jël des ordres illégaux di ko teg si kaw askan wi ëllëg buñ leen ko bu retourner contre ñoom dinañ wéet loolu seenub xeex ndax su boobaa kenn du leen yërëm kon lépp loo xamante ne buñ la ko defee ëllëg mu metti la boo koy def nit na ko xool mais Sénégal nag on est dans pays boo xamante ni malheureusement ñi nekk si bopp bi man je assume mes propos seen propre intérêt moo leen intéressé bëgguñu Sénégal ils aiment pas pays parce que koo ci gis actuellement à l'heure que je vous parle seen njaboot ils sont à l'étranger ñoom ñëpp ngi à l'étranger ñu yóbbu teg li waral loolu nag mooy parce que xam nañ yow mënoo ñëw sim réew nekk sim réew juddoo fi yaroo fi màggee fi ba pare nga ñëw bëgg jaxase sam réew pour sa intérêt personnel jël sa njaboot yóbbu dem làq liñ naan làq doom dóor doom su boobaa nag li muy jur mooy ku nekk jël ses responsabilités fipp te su boobaa on le souhaite pas mais si ñëpp lay méttee te li xew actuellement képp ku toog naan sama yoon nekku si dina fëgg sa buntu kër taxaw injustice baaxul te nit ñëpp jug xeex injustice mu jóge fi loolu laa amoon lu may wax ba leneen lu ngeen mën a bon ni mu amee man fi laay fi laay fanaan waaw ñëw nañ ma dégg bruit jug bi ma jógee ñu ne ma sëñ bi lañ soxla bon environ vers huit heures neuf heures ah waaw ne sëñ bi lañ soxla biñ ñëwee sëñ bi lañ soxla man leen ah sëñ bi de gaw ma gaw ma ni fi la fanaan xaaral ma laaj ba xam léegi après nak si lañ si lañ si lañ si lañ c'est quel motif ñu ne ma non oto bi lakkoon lañ indi. Euh, résultat yi affaire yooyu léegi nag si laa fëggee soxna si ne ko ah sëñ bi sëñ bi da la ñuy non si dañ ma nax kay bien sur je peux dire que dañ ma nax dañ ma nax parce que buñ ma waxoon mais yu mel noonu tamit bon ça c'est comprendre parce que duñ la duñ la wax le le vrai réalité li nga xamante ni moo am loolu daal moo si am ñu ñëw bon buuxante xëcc ak bàyyi bon ñu défoncer porte bi voilà te amuñu mandat d'arrêt amuñu dara loo xamante ni bii luy firndeel ni kii war nañ ko mën a yóbbu. non appel à l'instruction moom fi mu toll nii moom booy na si nopp ñëpp fi mu toll nii sawaay da ngay romb léegi sax léegi si mbedd mi sawaay xaqandiku tifli sax ñun la appel à l'instruction maanaam réew mi moom réew mi moom fi mu toll nii maanaam moom euh, li dàmbooj di wax rek comme lido ku génn ñun la kirtim li koy faj nag mooy ñi seen ñëpp jël seen responsabilité c'est tout pacifiquement nag waaw